ñu Ndiaye ñu gën a coupe sàcc du gagné trian du gagné bàyyi yéen journaliste yi ba ngeen gën a intelligent masuma ne duñ gagné coupe de masuma contre équipe nationale sénégalais la dama kontaan waaye nag critique mooy tax ni da avancé man dama jàng la critique et l'autocritique sama formation de marxiste waaye di raay rek boo gisoo la ba ngay raay rek dara doxul ngay raay rek Zimbabwe quatre minute penalty mu ñu sowe Guinée match Malawi match bàyyi leen di nëbbu parce que après neex na rek ngeen fàtte lu bon la amoon me ñu lépp a neexoon déedéet yéen a gaaw fàtte yi dama ni am nañ équipe boo xam ne coupe du monde fii war a ñëw bu ñu amoon entraîneur bi mën ko jël nañ coupe d'Afrique bu yàgg jël nañ coupe du monde bee passé di nekk beneen coupe du monde mais ma ne leen amuñu entraîneur boo xam ne dimension mondiale la ak wax Aliou Cissé gagné na ku gënoon nii la Aliou Cissé du monde sax chance dafa am aussi mënoo am joueur am chance am les meilleurs joueurs du monde meilleurs gardiens du monde meilleurs arrêt central du monde et meilleurs milieux du monde meilleurs attaquants du te mënoo am coupe du monde kon war nga war nga d'Afrique man dama xeeb coupe d'Afrique bi tax nañu di di naaw Edouard Mendy am Sadio Mané am Gana Gueye am Pape Gueye am Cheikh Bamba Dieng am Ismaïla Sarr taxaw di doog coupe du monde kooku man man bu ñu ko joxoon ma entraîné ko nañ bàyyi di raay raayante bi ëpp yaa xam nga ay tak ay tactico nga xaw ma lan nga technicien mais Aliou Cissé dafa am chance bu kenn amul benn entraîneur Sénégal mosu ko am mooy lii ñëpp am nañ ay joueurs de dimension mondiale même sans entraîneur boo boo leen boolee bàyyi leen ñu fubale seen bopp ñu gañe coupe du monde ñoom bu ñu toogee réunion tabb seen bopp dem jouer ci gañe coupe du monde kon kay entraîneur bi maa ngi koy nuyu di ko féliciter Aliou ndax am na ndam waaye bu ñu fàtte nag ay lacune am bu ay ay ay ay rëcc-rëccam yoo xam ni xaw nañu sànq premier tour te comme ñëpp dañ fee nekkoon di jaay affaire naa man dama wax ma xalaat te avant moom fédération bi ci boppam maa ngi koy féliciter mais fédération bi du fédération dara fédération yambar la fédération complot la fédération coup d'état la fédération truand la yàgg naa leen ko wax. ku waxoon du def quatrième manda muy président Augustin Senghor laaj quatrième mandat xanaa boobu kenn du ci wax kat kan man nati nga yowoon dara waaye ko yàgg ci teen kay baat fekk la fa wala mu jaay ko wax yàgg na ci fédération bi jur junniyaat léegi am na benn ko bu ndaw bu xaw a bon pour pour Sénégal yi la lool mais mais xale Égypte am na ko juróom yoon loolu kon ñun la ñuy naaw di tëb di bëgg a dee lan la lu xew lu fi xew c'est vrai que wut nañ ko ba sollu ñu ko soog a am neex na lool mais waroon nañu ko am bu yàgg mais amuñu woon chance kon donc fédération am na chance mais dafay yàgg lool lool fukki at ak juróom benn c'est trop kooku ku yàgg ci teen baak fekk la fi waaye du mérite na fédération amul benn mérite dégg ngeen xëccoo xaalis yeeg tamante dëmm beeg parce que ñoom xaalis lañ ay dëmmu xaalis lañu fédération kenn du nangoo dem kenn du nangoo dem